Aïcha ba tey ñu ngi biir nee la ambiance 100 pour cent mon ci loo ne. Aïcha Collé ça va bien alhamdulilah. yaa ci jàmm. waaw maa ngi cool rek. naka affaire yi. neex rek. mais ndaanaan nga. barke yaa ma gën a nekk ndaanaan. mais looy lekk beñe ngay lekk wala si ngoom. ah màcc beñe ngay lekk si ngoom. màcc laa yëg. <laughs> est ce que nekkul da ngaa yor ay beñe dugal ko fii yenn saa nga lekk. xaaral ma mais naka si waare bi. mais ça va mu ngi neex lii moom. waaw nice nice nice nice. tey ñëw si soirée bi. waaw foo jógee foo jógee. dëgëj man dëgëj laa. ban nga départ. xaw na yaaga ay minuit ah. ay minuit waaw mais accident man maa amoon lu ma doon lijjanti rek. xaw a nekk si courte courte yi rek xam nga. bi passé demoon nga arena. non non demoo ma nga doon xaar bii. bii laa doon waaw. kon yow alab lebu. non ma lebu nag man booy rëbës laa. booy. booy rëbës Dakar. Dakar nga dëkk jugee rëbës. moo tax nga garaaw moo tax ma naan la ndax lokk ay beñe. wala damay def ay de kontaan naa mon frère. ay ñu dugg si biir. ana sa waa noo def. ah ça va ça va. loolu. alhamdulilah. ça ça c'est quoi. ça c'est merci beaucoup ça c'est mignon. Sélénguéwal ça c'est magnifique. Sélénguéwal central. lan waaw sañ sañ rythme. Sélénguéwal central waay waaw maa ngi sant naka affaire yi. sant bu baax xam nga waaw sant bu baax. dafa mel da nga ngéwale. ah waaw nooy def ne daañu ko mu ngéwale ça va bien. waaw gis nga naka soirée bi noo ko gisee. soirée bi ça va ah dañoo demoon arena embouteillage bi xam nga comme ñëpp mais ñu ñëw rattrapé ko tey. mi ngi neex. non mi ngi toj. yaa ngi koy yëg. bu baax. macha ba suba xam nga ne coupe bi ñoo koy jël ci kàttanu yàlla. non amul wax sax. loolu moo comment. non de 3-1 lay doon. mais dëgg nduroog américain. waaw ah, baax na merci beaucoup. wala nga jógee foo jógee. non maa ngi Madrid. yaa ngi jógee Madrid. waaw Madrid waaw. xam nga man damay bëgg nag nga wax waa Madrid. ñoom ñi ni seetaan wax leen ñi ni yëngalee fii ci espagnol wax leen ne Youssou Ndour ngi wàccee fii. Hola, ¿cómo estás Madrid? Estamos aquí. Wow. lo estamos pasando muy bien. os esperamos aquí un saludo kontaan naa amal jàmm jaajëf ay ca nii lañu demee dañuy ambiance ba mu neex ndaanaan la ay ca topp moom ma dugg ci biir ñaar ngoog da nga kontaan waaw ah, bu baax a baax ni nga bare sama doom bi ñaar ngoog na nga bare way bi du ko baral ki ke du moom. daanaan la. kenn du moom laa. yaa ngi enjoy. bu baax. mi ngi neex. bu baax. foo jógee nii. man maa ngi jógee maa ngi jógee ba Tëngéej. Tëngéej nga jógee. ban heure nga maa ngi départ ay 23 heures yooyu. ay 23 heures mais son bi dafa mel dafa dugg sa bu baax góor gi. loolu loolu kon ngi folaale. bu baax a baax. wanal waa Sénégal ni ngay folaale. demal demal soo defee nii soo defoonee. Agora, agora, né? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei.